22 février 2022 mu dëppook bés bi nga xamante ni moom la Sénégal tànn ci njiital président Macky Sall ngir inauguré stade bu jam Diamniadio bi ñu ko doon duppee stade de Sénégal waaye yàlla dogal mu jox ko maanaam turu maître Abdoulaye Wade nekkoon ñetteelu président Sénégal. waaye nag ci wàllu culture ak aada gi fi amoon ak surtout ci wàllu euh, maanaam musique bi ci artistes yi nga xamante ne copte woon nañ leen ngir ñu maanaam bégal fan si bégal waa Sénégal ci bés bi ñu bëri def nañ fi playback bu nu limee dañuy jum waaye ki nga xamante ni jeunesse bi ñu ngi koy xaar ndax bokk na ci artistes yi nga xamante ni am na place bu mag ci ndaw yi réew mi euh, mujjul def euh, play bagam euh, deful prestation kooku mooy Wally Ballago Seck lan moo xew ñu bëree ngi naan ndax dafa gedd est-ce que réellement dafa gedd qu'est-ce qui s'est passé mu di question nga xamante ni ñu bëri ñu ngi koy posé wu ci coulisses yi yi ñu ngi laajte lan moo waral ba Wally mujjul def play back te itam ñu ngi ko doon xaar ndax finalement dafa am lu xew ci diggante mook ak ñu organiser ndax dafa yéeg sur scène après amul li mu bëgg daa dee wàcc en tout cas daal fi mu ne xalaat yi ak gis-gis yi ci nekk yaa ngi xalaat naan lan moo war a xew lan moo war a am ndax tamit ñoom ñu ngi ko doon euh, askan wi ñu ngi ko doon xaar ci bés bi ndax euh, ci wàccaay wi gisoon nañ ci taxawaay gu mu amoon euh, ci mbir yi ànd kook artistes yi ngir woo gaay kon mbokk yi loolay xibaar gi nga xamante ni jaaxal na nit ñi donc bëgg nañ xam réellement lan moo xew ci Wally sekk ba mujjul def prestation